waa une semaine yàlla moom képp kuy werante ay mbiram rek xamoo ko lépp lu ñu la wax ni alxuraan man man na ko nga toog fële weddi ko naan bi daal la da ngay wax ni yàlla aayul yàlla moom ay mbiram moom weesu na foofu te alxuraan bàyyiwul dara dara aayu ci léegi da ngay julli ñaari rakk ñaari rakk waaw bu njëkk bi mhm. nga tari faatiha benn yoon mhm. faatiha benn yoon suratul xadr inna anzalnaahu fii laylatul xadr benn yoon خدر بن ديف استغفر الله استغفر الله استغفر الله فك يون اك جوروم ركعه بو ديك بي فاتحه واو بن يون بن يون انا انزلناه في لدر الخدر بن يون بن يون استغفر الله واو استغفر الله استغفر الله فك يون اك جوروم فك يون اك جوروم موي 15 موي 15 واو nga nga ruko hmm wax ko fukki yoon hmm nga taxaw hmm wax astaghfirullah fukki nga sujjóot wax astaxfirullah fukki yoon mhm. nga toog wax astax astaxfirullah fukki yoon sujjóotaat wax astax astaxfirullah fukki yoon jóg taxaw jàngaat faatiha benn yoon mhm. inna anzalnaahu benn yoon mhm. def astaxfirullah fukki yoon ak juróom boo rukooxee def ko fu astaxfirullah fukki yoon taxaw ci rukoox bi def astax astaxfirullah fukki yoon sujjóot def astaxfirullah fukki yoon jóg ci su jóot bi toog wax wax astaxfirullah fukki yoon mhm. su wax astaxfirullah fukki yoon daa di wax boo toogee pour taaya wax astaxfirullah fukki yoon daa di taaya sëlmal boo sëlmalee mu nekk ñaari mu nekk mhm. ñaari rakka boo sëlmalee ñaar def benn faatiha ngay jàng faatiha astaxfirullah nga def ko fukki yoon mhm. jàng salaatu ala nabi fukki yoon def nag yaa xayyu yaa xayyum bi rahmatika astaxiis nga def ko cent un fois yaa xayyu yaa qayyumu bi rahmatika astaxiis bi rahmatika astaxiis astaxiis waaw boo ko waxee fukki yoon maanaam téeméeri yoon ak benn mooy cent un fois bu fekkee mënoo ko nga def laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin quarante et un fois boo paree mboolem aajo boo am ñaan ko sunu borom bu may la ko te nag julli gii képp koo xam ne yaa ngi koy saxal dina génn ci yow téeméeri jàngoro ak benn. ndax leer na. leer na naññ. loolu lépp. ci xéewali macha allah est-ce que est kon ñu ñu ñu jàll feneen bisimilah. waaw jërëjëf.